dañoo gis ne UNESCO dafa woote séminaire ak enseignants yi ak autorités yi nekk fii senegal pour ñu jàngal suñu doom yi wàllum góor jigéen ci école yi ñu ne laal la mooy sa xalaat. non loolu moom loolu du xalaat bu baax loolu képp ku koy digle moom loolu nekkul lu rafet quoi waaw parce que xale yi ñoom ay royuwaay te ñoom ñooy roy ci mag yi ëllëg kon bu ñu leen jàngalee li nga xam ne mooy yàq société bi loolu day doy day daal doy waar quoi na leen di jàngal li nga xam ne ñoom la fi maam yi bàyyi woon. si loolu lañ leen war a jàngal yar leen ci ñu màgg ci mais bu ñu leen bëgg a dugal ci leneen loo xam ne day yàq société rek loolu moom kenn àndu ci. lii suñu xeet mooy ak ngóor jigéen ndax boo xoolee seetlu ak ngóor jigéen ma nga tàmbale woon ci yonent yàlla bu ñuy wax luut ak ngóor jigéen fa la tàmbale woon bañ nekkee ci loolee yaa daf leen alak ndax loolu lañ doon def ci dëkk bu ñu doon wax Saaduum te Jordanie kon loolu day yàqum réew. da koy yàq lool lool te baaxut léegi nag su waxee éducation su am njàng éducation la ñuy wax su am njàng éducation moo jiitu kon su fekkee éducation la ñuy wax ak yar kenn waru cee wax jàngal xale bi lu jëm ci sexe rek wala ñu wax ci ma ak genre loolu kenn waru koo jàngal xale bi ci tout ab tout temps nga xam ne xamagul dara xamagul dara nga bëgg def loolu ci boppam loolu moom rafetul ñaaw na lool lool lool ba fa ñaaw ñaaw yëpp. xanaa di ko ñaawlu. di ko ñaawlu fu ñaawlu mën a yem te yaakaar naa ne UNESCO ak enseignants yi su ñuy woote réunion dañ ko war a tasaare mais war ñu ko yemale seen biir rek ba nga xam ne mu mel ni dafa am lu ñuy làqu di ko def waaw war nañ ko tasaare ba nga xam ne ñëpp nañ ko yëg xam ne ñoom lu ñuy doxal lan la waaw mais loolu moom man rafetluwuma ko te ñaawlu naa ko fii dëkk jullit la am na yenn yoo xam ne dafa warul man wax dëgg ànduma ci parce que bu fekkente ne loolu dañ ko tere woon ci réew mi kilifa diine yëpp ànd ci euh, président waxaan ni du ko du ci du ko ci mës dugal ñu dem ba tey jii suñ ko bëgg a dugal ci école yi kon day nuru leneen loolu man ànduma si tey ànduma si ëllëg parce que man lu diine àndul man loolu ànduma ci parce que man diine rek moo ma ñor te loolu du diine l'islam du diine chrétien kenn bëggu ko kon man ànduma si. laa saa subhanallah yàlla na yàlla musal loolu baaxul sa waaye yow di jaamu yàlla moo gën ah man loolu wax sax loolu ànduma ci moom ay góor jigéen moom sax waaye képp ko xalaat sax yàlla nga gaañu balaa yegg si see sa waaye na jànga xale diine ak jaamu yàlla barki maam Cheikh waaw kilifa diine yëpp nekk fii kilifa aada yëpp nekk fii est-ce que tey ah, ñun war nañoo nangu tubaab bi ñëw duñu imposer rawat na ñu koy jaare suñuy doom kilifa aada yi moom ñëpp nañ cee taxaw ndax ñoom seen mission la ñoom waaw Euh, dama xamul ndax ñoom danañ si jotee ba teel a di yëg ñii li ñuy def moo tax ma la ñoom seen réunion yi ñuy def ñëpp dañ ko waroon yëg xam ko xam li ñuy def lan la bañu xam ndax ñoom Sénégal dañ ko d'accord wala duñ ko d'accord non loolu dama yaakaar ne sax duñ ko wax waaye moom duñ ko nangu moom parce que ñun fii li fondement suñu réew mi mooy diine suñu waxantee dëgg rek bien vrai que euh, kilifa aada yaa ngi waaye su li gën a fondement suñu suñu réew mi mooy mooy diine ji te ñun diine ji nag moo nu ñor loolu moom dañ ko wax rek mais moom mënu fee am mais def nañ séminaire bi waaw mbay mën nañoo def séminaire bi mais xam nga ne nit ki moom euh, loolu gars yi di wax nit ki moom mën na am yéene mais yàlla mooy dogal. Euh, ñun bokk ni sax ñu war ñoo jàngal euh, suñu kilifa yi fi nekkoon nga xam ne dañoo baax lool ñu leen tudd ci ci ci ci réew mi fu ne sëriñ si fi nekk yëpp ñu xam nañ leen seen mbaax dong moo tax ñu leen tudd ba léegi. kon ñooñu sa dem nañ ba war nañoo dem ba seen école yi ñu ñu jàngal leen ñooñu ñu xam leen xale yi xam leen bu baax a baax loolu moo gën mooy li rafet nga xamante léegi léeg boo gisoon école ñun dañuy jàng ay tubaab dañuy jàngal ay tubaab yoo xam ne xamuñu fu ñu dëkk mais ñun suñu réew ñu fi nekk am ay valeur ñu fi nekk kenn leen jàngal loolu moom jaaduwul tamit. loolu pour yàq la rek ñoo ñu def loolu yàq moo leen tax a jóg day am lu leen di financé pour ñu jël xale yi yóbbu leen ci côté boobu xam nga la mais léegi nag loolu ñu fi nekk ñoo ko mën a xeex. lan nu ñu koy xeexee mooy bu ñu leen gisee ñu commencé dugg ci société bi di xëcc xale yi dem leen ci loolu mu taxaw wax ak ñoom. loolu moo di yoon saay yow réew mi lii war a jàngal dafa bari bu ñu jàngalee suñu tubaab yi mu jàngale maam alaaj maali ak keneen ak keneen xale yi dinañ am jom nangoo liggéey bu baax nekk ay iti diine réew mi avancé ah man loolu laa xam moom jàngal yi daal diine ak li nga xam ne suñu maam yi lañ fa bàyyi ci lu baax jàngal xale yi mais affaire góor jigéen moom bàyyi ah man taxaw ma loolu yàlla na ci mu musal